on comprend donc monsieur Semedo euh, tey euh, yéen ñi yéen ñi nga xam ne yéen ñi doon raisonné suñu débat bi dañu organiser fii si IK News benn débat euh, pour wax li xew Sénégal li xew Sénégal nag moom xam naa ne ku nekk gis na ko ñi nekk biir Sénégal ñi ngi koy dund ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew tamit ñi ngi koy dund tey li si a métti nit ñi mooy boo xoolee tey Sénégal dafa nekk réew mo xam ne ni naka jekk nit ñi dañu ko mosoon a jox cër naw ko foo toll ñu ne Sénégal vitrine la loolu moom wax dëgg yàlla bañ koy wax yàgg na léegi nag tey ñu ñëw amoon si yaakaar su président Macky Sall président Macky Sall tey ñëw moom si boppam sax ku ne dégg na ko si làmmiñam mu ne troisième mandat baaxul day indi fitna te ne kenn ko fa yéentu séentu ba fekk fa te tey nag démb tamit doon nañu ko dégg muy wax ne àdduna tukki ba mu tëj journaliste mu du ma ne yàlla da ko nattu mais lépp lu mu waxoon si lu bëree bëri daal tey safaanul li ñuy gis monsieur Semedo yow loolu lan mooy sa yaakaar ak noo ko jàngatee. mais affaire bi yomb na li tax yomb na mais coach Barham Fall waxoon na buur du mbokk. Mhm. bu ñuy def assises nationales yi li tax ñu def ko. Mhm. dañoo taxaw ñu xool ne gouvernance gouvernance bi baaxul. gouvernance gouvernance bi dafa yées. Mhm. Euh, maanaam nguuru Euh, euh, Ousseynou Seck daan na wax ne ku ne nguur bi neexul sa baay da cee bokkul donc mm-hmm. waaye bi fekkee ne euh, Wade falu na foofu la ñu gis ñi nga xam ne ñu ngi tudd ay libéraux yegg si mm-hmm. libéraux yi ba ñu ñëwee dañu mel ni woon ñoo xam ne ay bukki lañu mm-hmm. ñu tuddee leen bukki njuur sàmb bu ñuy séddale seen bopp rek la ñuy séddale ak seen waa kër lu nekk ñu xiif ko yóbbu ko seen kër yóbbu ko seen téye ko Mhm. moom lañ doon wax buli buli boulimie foncière bi amoon ci Sénégal maanaam jiiroo suuf si jiiroo xali xaalis bi jiiroo alalu réew mi ba ñu defee ba ñu defee assise nationale yi ñu ne nag loolu dañ koy dañ ko fiy jëlee mhm. mu am benn buñu bu ñu formé woon mu tuddoon euh, euh, mhm. Sigil Sénégal Tanor nekk ci ñoom Moustapha Niass ak ñëpp nekk ci ñu ne léegi nag foofu la ñuy ne dañuy changer léegi Sénégal Sigil Sénégal Mm-hmm. mais gis nañu ne mm-hmm. euh, loolu euh, bi Macky Sall ñëwee tegu ko ci yoon dafa ne gouvernance boobu sama yoon newu ci ak euh, assise nationale du ma ko respecté mm-hmm. li ngeen ci liggéey yëpp amul benn njariñ ndax man du ma ko respecté donc respecté wu ko mu jël ko teg ko fële maanaam li Wade doon def moom mu def ko mu gën a yees tey te ñun ñëpp ñu ngi ciy dund léegi nii di ko gis ndax tey jii gis nañu ne que Euh, euh, libéraux yooyu lu dul rawle lañ fi nekkee te jii rawle boobu ñëpp gis nañ ko fii Sénégal ñëpp gis nañ ko ñëpp nga koy gis ñëpp koy xool ndax koo xam ne da nga falu defuloo juróom benn weer wala defuloo ñetti at amay milliards foofu lañ ko mës a gisee benn benn milliard mooy mille million mhm. nañ ma wax ban nit la yàlla may nga nekk fonctionnaire sa mhm. baay musul nekk euh, disons capitaliste musul créer entreprise musul créer dara nga nekk fonctionnaire xëy yow sa bopp benn nit dong am mille millions loolu kenn mënu koo kenn mënu koo dund. ba mm-hmm. boole ci. Mm-hmm. Euh, euh, léegi ku wax ku wax ci réew mi boo ci bëggee wax ñu ne yow mi koy wax. Mm-hmm. Euh, soo sàgganee ñu defal la lii ñu def la laa. diffamation bi ñuy wax nii tey mun nañu wax ne ñun ñii ñëpp mun nañu ne mun nañu xëy benn jour doo ñu plainte pour diffamation. ndax koo wax ne yow hmm. euh, démb amoo woon dara waaye tey yaa ngi xëy milliards mu ne la man mii sama wàlli bopp milliards yi ma yokk hmm. euh, euh, maa tey maa ko yokk mais yow mii amuloo droit ne ma dama sàcc hmm. sumay milliards yooyu waaw ah, kenn kenn amatuñ droit wax léegi sàccee daal léegi daal moom Sénégal ah, moom kay ñeme ko wax léegi kay boo ko waxee boo saaganee nga ñu sàkkal la pexe waaw Moussa yow loolu loolu lan moo parce que Sénégalais yi moom ñëpp xamante nañ di fi seen bàyyi nekk grande industrielle wala yenn liggéey liggéey yi ba nga xam ne ni mën nañoo yor ay milliards moom mën nañ leen compter te nag gis koo xam ne da nekk jàng ba am bac plus 10 ah, nekk profession lu enseignant wala nekk beneen métier ay ati at ñu xam ne yaa ngi am sa teraanga waaye fa la yem ñu gis politicien boo xam ne da ngay ñëw engagé bu nekk ministre xëy xëy rek bu yor xaalis bu du jeex yóbbu say doom bitim réew ah say doom di fajoo bitim réew sénégalais yi nag di yore say 4 4 sénégalais yi nga xam ne nag ñoo la jàngale sax ñoom di di lekk cere dafa mel ne Moussa dégguñu de. waaw waaw yaakaar dégguñu. faisceau faisceau bi mooy tëb quoi faisceau bi mooy ah, tëb. loolu day am Sénégal faisceau bi mooy tëb. mooy doy waar mais liñ ci mën a tënk moom liñ ci mën a tënkaat mooy boo jëlee géej gi nga jaay ko bitim réew. dëgg la nga jël géej gi nga jaay ko bitim réew. nappkat ya fa nekkoon. Mm-hmm. mënatu ñoo napp ci géej gi. Mm-hmm. léegi ñoom seen gaal yi ñu xëy léegi ne léegi li ñuy def gaal yi mooy mm-hmm. dugal ci ay nit ne dañuy tukki. dëgg la donc ñoo ñëpp xañ nañ leen ay jàmm. Mhm. Sénégal tey jii fu ñu toll nii. loolu yëpp ay wax yoo xam ne nit bu ko waxee bu sàgganee mu am ci problème. dëgg la de. Euh, bu ñu jëlee Oryx yi fii jël mhm. Oryx nekk ci gouvernement nga jël ay Oryx yoo xam ne euh, euh, maanaam yooyu ay emblème la. Mhm. nga jël ko yóbbu ko yow si sa si sa jardin. ci sa ne léegi pour que ñu ni ñëw sa sa xarit bu ñu ñëwee. nga wan leen ne yow am nga ay Oryx te Oryx yooyu Sénégal moo ko moom. Mhm. Oryx bu ah, nekk ñaata ah. million lay jar. Hmm? nit benn nit jël ko yàq ko def ci lu ko neex dara fekku leen ci. Hmm. tey jii euh, euh, ki nga xamante ne moom la ñuy topp bëgg duñ koy duñ koy duñ koy duñ koy tere mu dem. Hmm. duñ koy tere mu dem élection yi. mais bu gisee loolu. ndax moom dina gëm ne ñii dañoo bëgg réew mi ba nga xam ne mun nañu téye réew mi. Mhm. man yaakaar naa ne réew mi fu mu toll nii. Mhm. sénégalais yi ngi ñuy dox yëpp même xale yu ndaw yi. Mhm. xam nañu bu ñu moytuwee désobéissance civique bi day bare day am fu nekk. ndax nit ñi dañoo sonn nit ñi dañoo sonn. ah beneen aspect bi nga xam ne mu nekku ko tënk nag mooy li ngay wax ni est-ce que journaliste. bi nga xam ne déontologie moo ko moom. parce que journaliste buy man waxuma ñi nga xam ne dañuy xëy nekk ci réseaux sociaux yi di saaga ñëpp. loolu ah. waxuma ko. mais vrai journaliste nga xamante ne ñu ngi def seen liggéey. Mhm. Euh, def investigation def seen enquête ne lii ñoom la ñu gis même bu ñu juumee. waruñu tëdd. yàlla wax dëgg yàlla bu ñu war a yóbbu prison tëddal leen loolu amul njariñ. vraiment te même Sénégal mais nit bu defee erreur sax bu defee erreur si liggéeyam enquête am sax mais yoon la sax nga woo prévenir ko football sax boo defee faute dana jox carton jaune. wala prévenir mais pare rek juum comme comme Babacar wala ñeneen wax mu dafa juum de. mais sa liggéey rek ñu jël la yóbbu si kaso loolu loolu dafa dafa loolu dafa yabaate la. vraiment dafa garaaw léegi de fu ñu toll fu ñu toll nii euh, mm-hmm. ku nep képp koo xamante ne euh, journaliste nga. Mm-hmm. wala nga nekk euh, intellectuel ci réew mi. Mm-hmm. na nga xam ne li dal mankabu. wala li dal ñaari gendarme yi. mun na dal sénégalais bu nekk. ndax ay nit yoo xam ne ay fonctionnaire ñaari fonctionnaire yooyu. ba léegi enquête yi wanewul lu leen rey xale yi nga xamante ne euh, maanaam faatu nañu ci événement deux mille vingt et yi mhm. benn enquête mhm. wanewul lan moo rey xale yooyu mhm. benn enquête kenn xamul lu leen rey mais tey jii bu fekkee ne justice am na ci dëkk boobu euh, procureur bi na autosaisiru ne léegi man xale yooyu dinaa fexe ba xam ne lan moo leen rey ndax au moins fa ñu tëdd ñëpp ne ah lii moo xale yooyu hmm. lii amoon na fi reyoon nañ ci étudiant bi ñuy wax Omar Blondin Diop mais Omar Blondin Diop bañ ko reyee hmm. ñaata at la ñu toog ñu doog a xam lan moo rey réellement Blondin te ba léegi sax affaire bi leerul ba léegi dëgg dëgg hmm. te loolu mooy wane ci réew euh, ña koy jiite ñoo mën a changé dëkk boobu ab réew na am jub euh, euh, ay nit yu baax ay jiit yu baax quelques années après réew boobu dem ci kanam Mhm. mais ñu tey jii suñu réew mi chaque jour boo yeewoo. Mhm. nga gis ne dund gi dafa jafe. Mhm. kenn mënul dund. kenn mënul euh, kenn mënul euh, euh, dund normalement kenn mënul yóbbu sa doom mu jàngi normalement école yi dañoo cher université yi cher lépp cher. dëgg la mais mu am ay nit yoo xam ne bu ñu xëyee ñoom. suba ba ngoon li ñuy yaakaar mooy fan la xaalis nekk. ñu dem jëli ko ne ñoom ñoo ko moom te loolu ay bor yoo xam ne sénégalais yi juddoogul ñoo ko naka fay. dëgg de. bu ñu doon def li nga xam ne liggéey bi dëgg la tey waroon nañu def investigation réellement pour xool nit nit ku nekk fu mu jëlee alalam ci réew boobu. Mm-hmm. boo newee fonctionnaire milliardaire ñi ni war nañu xool foo jëlee sa alal. muy dëgg. ndax fonctionnaire euh, euh, euh, mënul xëy nekk milliardaire loolu mënul nekk ci réew. te loolu ñu koy dund ñun ñëpp sénégalais ba pare gars di wane affichage bi di ko wane tous les jours ñëw taxaw. yor ay 4x4 yoo xam ne 100 wala 200 millions la jar romb la tabax ay këru 800 millions jëm kaw di la xool. ba pare naan la sawaay man man li may def nii maa ko tey mais mënuloo ma dara mais yo boo waxee ma tëj la. dëgg la. ah loolu doy na waa. waaw ah, monsieur Semedo euh, léegi suñu beneen thème bi ñu war a waxtaan nag mooy mbiram manifestation yi. Euh, xam nga ne hmm. manifestation yi démocratie bu mu tam si adduna bi ni ñu ko waxee sànq si français rek bu amee manifestation ni ñi dañuy déposer seen seen seen demande. police encadré leen li ñuy manifester jàmm ku ne ñibbi sa kër mais léegi Sénégal da ngay dem manifester sax ñu ne bu la rayee yaa perte xam nga ne nag ak ñu xam ne da bu ñëwee ministre de l'intérieur déclaré lii moo rey te bu ñëwee nag autopsie bi ne bal moo rey wala wax le contraire waaw léegi nag bu ñu ba nga xam ne réew mu toll Sénégal nit ñi bu ñu manifester man seen te depuis manifestation yi ba léegi nii deuxième quinquennat Macky Sall bi daanaka boo xoolee ñi si gaañu loolu moom moom moom fa lañ jëm fu mu nekk nii xam nga bu nit ñi demee bay def euh, comptabilité ñiy gaañu entre deux mille vingt et un tey mhm. ci manifestation yi yegg nañu dix sept ak ñi nga xam ne peut être wàññeekuñ leen. Mhm. waaye euh, dix sept yooyu euh, rot ay ndaw lañu ay xale lañu. dëgg la ñooñu boo boo gisee boo gisee lii am tey. moy mhm. enquête yi ñu waroon def defuñu ko. Mm-hmm. enquête enquête yo de service dafa war a am. Mm-hmm. bu nit euh, euh, faatoo. Mm-hmm. ci manifestation la moindre des choses que élément yëpp génn ñu xam ne lii moo rey kooku. am na loo xam ne kenn waxu ko ci réew mi. réew mi toll na foo xamante ne ñiy rey kenn xamu leen. ndax buñ demee ba nga xamante ne léegi nervi yi yaa ngi ak ñin ñi. waaw mais nervi ak manifestation loolu doy na waar trop. foo tourné ay nervi ngi ci. léegi donc yow bal perdu am na mais snapeur yi ñuy wax ne am na mhm. loolu moo gën a doy te léegi chaque jour nga dégg wax jooju mhm. xoolal xale bi ñu bi ñu rey euh, ngor mhm. mais euh, ay waajuram lu lan la ñu mën a waxati ndeysaan ñooñu ñàkk nañu et du am kenn ku mën a réparer loolu du am kenn ku mën a réparer loolu parce que amul benn procureur bu jël tey initiative ne man déposé naa euh, pour léegi def enquête bi ba xam xale boobu lan moo tax mu génn àddina. dëgg la. léegi nag ñun li ñuy ñaan. Mhm. li ñuy ñaan euh, euh, mooy dëkk bi am jàmm. Mhm. ndax dëkk buy dem jàmm rek moo mën a tax dëkk dem euh, dem ci kanam. Mhm. mais da yaakaar naa ne. réew mi bu ñu bëggee jàmm. nañuy def aussi loo xam ne mooy jàmm. jàmm ji mooy Ousmane Sonko. yàllaa ko bindee comme ni mu bindee mbindeef yëpp. Sénégal la juddoo. Mhm. donc moom am na droit. Mhm. Euh, aussi présenté wu ci élection yi. Mhm. léegi nag bu ñu bëggee def li ñu def Karim Wade. ak li ñu def euh, Khalifa Sall. bëgg ko teg euh, Sonko. loolu xale yi duñ ko nangu. ndax xale yi benn affaire moo ci am. génération bii. moo tax ñu ne le problème de le problème bi ci am. ci ginnaaw Sonko c'est un effet de génération c'est une cristallisation. Mhm. sur une personne. et xale yi mhm. loolu rek moo leen dese. Mhm. ndax xale yi ñàkk nañu lépp. ñàkk nañu xëy amuñu ko. lab nañu si géej gi kenn du ko wax boo waxee politiciens ñu ne ñoom mënuñu si dara xale yi ñoom ñooy lab ci géej te ñoom ñoo jaay géej gi. ressources yi di ñëw xale yi amuñu si dara ndax xale boo koy préparer pour avenir am. soo amee ressources yu day nii Sénégal normalement da nga war a d'abord jël xale yi. Mm-hmm. une formation par euh, euh, disons par euh, par génération nga ne léegi. Mm-hmm. damay préparer une génération boo xam ne ñoom ñëpp ci hydrocarbure la ñuy jëm. xëy yi am ci domaine hydrocarbure yëpp. Mm-hmm. sénégalais yi ñoo ko war a moom. et xëy yooyu mënoon nañ ko moom bu fekkoon ne def nañu comme la Corée. ndax dëkk dafa war a di investir si recherche ak science. mais nañu xool li xew Sénégal lu doy waar la. religion ak politique la ñuy investir xaalis le tout ce qui est euh, euh, recherche scientifique développement formation duñ ko def duñ ci dugal xaalis parce que duñu naan universitaires yi dañ leen duñ leen toppatoo mhm. mais nag ku ku ku ku dese détester say universitaires mhm. détester say chercheurs doo dugal xaalis foofu sa dëkk mënul dem mhm. tey jii boo xoolee bu baax li tax Sénégal mënul dem xoolal Sonatel niñ ko jaayee Hmm. ku nekk ku nekk patriote tey nga gis ne que Sonatel ay milliards de bénéfices la doon am hmm. ñana jaay Sonatel e waa Corée wa Corée bu ñuy wax tey jii bu ñuy wax Corée Corée lan moo ko développé lan moo ko développé téléphone am télé système téléphone am léegi ñu ngi def lan ñu ngi jaay ay ay ay seen système boobu moo indi lii yëpp tey ñu ngi defar ay oto di defar ay char di defar lu nekk parce que sur télécommunication la ñu defoon investissement recherche armée bi nekk ci ak ñoom ñuy liggéey liggéey ba développé Corée tey waaye ñun tey suñu développement lan la hmm. à part dem dem dem dem julli ji ñibbi si suñuy kër. loolu hmm. mooy suñu développement. Hmm. ñun ñoo nekkoon ak chinois yi. ak indiens yi. ak pakistanais yi. en 1955 à la conférence de Bandung. ñoo ñu ngi dem satellite. ñu ngi defar ay satellite dem am nañu ay bombe atomique. Mhm. ñun tey jii ku ñu bëgg ku ñu bëgg a rey da ngay ñëw Afrique nga rey ñu ñun ñëpp ndax amuñu capacité sax défense défense suñu bopp. Mhm. lool lan moo ko jóg ay dirigeants yoo xamante ne yu yees lañu. Mhm. monsieur Semedo kenn jéemul gëstu. pour ñu génn ci loolu. dëgg la monsieur Semedo bala ñoo jox kàddu Moussa Diallo Moussa Diallo connexion bi dafa génnoon ñëwaat na euh, li xam nga sànq yaa ngi wax si hydrocarbures yi boo xoolee comme par exemple pays Scandinave yi seen hydrocarbures yi dañ ko liggéey ba nga xam ne dañoo jël benn benn xaalis bu bëri boo xam ne dañ ko def benn fonds denc ko foofu pour jeunesse. pour fond boobu rek dañoo jël dañoo bénéfice yi ñuy am seen seen action yooyu rek rek bénéfice bi rek mën mën na mën na defar seen dëkk yëpp. donc la est-ce que Sénégal nag ëllëg mën nañ dem ba comme ni nga ko waxee tamit euh, de jox jox jox cër formation yi xale yi seen xëy ëllëg former leen forme bu baax euh, donc donc loolu en tout cas lu am solo la quoi Moussa Diallo ñoo ngi doon wax si en wolof euh, Sénégal tey. monsieur Semodo li mu doon développé. mbiram euh, développement formation bi ne politiciens yi joxuñ cër entre guillemets. Euh, waaw chercheurs yeeg enseignants yi entre guillemets. waaw non Ibra Khady vraiment c' est dommage mais Afrique nous sommes trop en retard dañoo nekk en retard ci lu bëree bëree bëri bëri. par exemple sunu cas ñun Sénégal depuis 1960 ba léegi gis nañ ne ku fi am bac nos meilleurs élèves ils partent en France ñoom ñëpp dañuy dem France. Mhm. te bu ñuy dem France sunu ay impôt lañ leen di yóbbee. mais ku ci dem France wala Canada malheureusement boo jàngee ba pare doo ñëwaat pour développer Sénégal pour développer Afrique par pourquoi doo ñëwaat parce que boo ñëwaatee pour nga am fii liggéey wala pour ñu caser la c'est tout problème parce que tout est politisé. parce que da ngay am compétence yi mais au lieu fii ñuy choisir par compétence dañuy def ay choix yoo xamante ne c'est des soit politiques. donc il fois nga dem en Europe boo fa delloo boo fa boo jàngee ba pare da ngay toog foofu nga liggéey. tey waroon nañu fexe tey fekk am nañ ay université d'excellence am nañ ay grande école ba nga xamante ne boo juddoo Afrique boo amee bac da ngay jàng fii Afrique ñu comme ça ñu woowaat sunu ay doomu Afrique yépp yu nekk à l'extérieur ñu ñëwaat lu ñu jàng foofu ak li ñu yor foofu ci expérience ñëwaat fii nekk ci grande université yooyu université d'excellence yooyu di jàngale fii nga xam ne kenn dootul génn réew mi hmm. parce que tey Chine Japon ñoom ñëpp seeni doomu dëkk ñoo ko ñoo ñoom tey encore beneen affaire patriotisme économique dañ ko war a def tey. waaw Moussa de dafa xam naa ne dafay dafay jàpp day rëcc léeg-léeg Moussa naka mu bu dee da nga xam. monsieur Semedo waaw amul benn problème la bàyyi nga continuer bon. Euh, problème bi problème bi mooy li musa wax nii euh, déjà da nga da nga Euh, ñun mun na jot nañ ko posé waxoon naa ko fii Ibra Khady ma ne ko dañoo amoon euh, benn sénégalais boo xam ne ñun ñoo liggéey ensemble si assise nationale fii Paris moo yoroon euh, côté science bi ak technique ñu koy wax Souleymane Atta Diouf mhm. Souleymane ata Diouf boobu yàlla na ko yàlla yërëm parce que moom moo créé woon train solaire ak bateau solaire mhm. léegi mu wax ko développer Sénégal Mhm. boobu ñu ngi nekk ci temps wu euh, euh, euh, Ablaye Wade ñëw na poser problème bi ñu koy xool Macky Sall ñëw ñu koy xool Lissouba bu Congo moo comprendre doon li mu bëggoon def bëggoon na ko dimbali mais Lissouba dafa fekk mu daanu mhm. boobu fekk descend nañu Lissouba Ngeso ñëw donc noonu la Souleymane Ata Diouf projet bi nekk mhm. dans les tiroirs ba Sénégal signé le TER euh, bu Macky Sall bii TER bi ngay gis ni hmm. euh, projet bi balaa ñu koy signé hmm. Macky Sall xamoon na que amoon na benn sénégalais bu ñuy wax Souleymane Ato Diouf te inventé na train ak solaire hmm. mais le minimum bu fekkoon ne patriotisme bi comme ni mu koy waxee Diallo kon tey jii au moins moom mënoon nañ ko associé ci programme boobu ñu ne ko léegi terre bi au lieu mu nekk un TER comme ça nañ ko def un TER solaire mu nekk une expérimentation Euh, d'autant plus que xaalis bu bare la ñu dugal ci terre bi. Mhm. mais bu ñu defoon loolu ñun au moins dinañu am capacité andi ay emploi suñu dëkk. mais ñun emploi yëpp yi ñu am. Mhm. emploi yi day dem à l'extérieur. emploi mhm. pourquoi mënul am Sénégal xoolal zircon bi. yow posé nga benn question léegi euh, Ibra Khady mooy problème mu euh, les pays scandinaves la Norvège notamment mais norvégiens yi noonu lañu def. norvégiens yi du ñu jël benn fonds. daal di ko jenc sans fonds de sauvegarde souverain la kenn du ko mm-hmm. laal mm-hmm. mais yan énergie la ñuy développé les énergies naturelles mm-hmm. moom la ñuy euh, euh, defee seen dëkk mooy thermodynamique boobu te ñun Sénégal ñun ñoo ëpp ensoleillement ci àddina quasiment ñoo ko ëppalee euh, dëkk dëkk yi ngay wax nii yëpp ay Espagne Espagne moo ñu xaw a développé taree tuuti mais Espagne sax bu ñu xoolee parce que ñun soleil bi bu ñu ko xoolee bu baax du tëdd mukk presque li muy tëdd barewul Euh, parce que bu commencé ba 19 heures ñu ngi am naaj. naaj boobu ñun buñ ciy defoon minimum. kon hmm. tey jii lu ñu soxla sax laal sunu pétrole a sunu gaz pétrole gaz boobu. sunu doom yi lañ koy bàyyi sunu sunu hmm. sëtaat sëti lañ koy bàyyi. Hmm. waaye nag xam nga jiiroo dëkk ba jiiroo a pàccoo moo fa am. pétrole bi moo a indi problème musiba yi ngay gis ni ci réew bi parce que pétrole fu ko découvrir le cas du Nigéria est la musiba rek lay jub parce que ñëpp a ngi fu mu nekk ni ñu ngi xaar après après pétrole bi. Mm-hmm. alors que ñun bu ñu développé woon suñu énergie solaire. Mm-hmm. Euh, déjà on l'a dit en 2000 mille Wade Wade dàq ñu ne ñu mais les gauchistes là écologistes ñibbi leen fi ngeen jógee. waaw monsieur Semedo xam nga ñoo ngi wax sànq affaire formation yi pays yu développé yëpp da ngay gis ne euh, li ñuy def mooy euh, muy maçon bi menuisier bi lépp ba lycée collège am nga droit choisir formation professionnelle ak formation général alors qu'au Sénégal boo fa nekkee dafa mel ni njàngam général rek moo fa rek information formation générale rek nan la am réew a développé bu dee ne yow doo amuñ ay école de formation quoi suffisamment. waaw mais école yi euh, école yi ça dépend euh, de la volonté politique parce que ñun ba ñu jëlee indépendance en 1960. Mhm. Euh, qu'est-ce qui s'est passé on voulait nous focaliser sur les formations générales. soo waxee tey euh, formation générale Sénégal moo ëpp ay nit ñu formé sur le plan euh, euh, général donc on a assez assez de cadre sur ce plan là mais pourquoi defuñu virement bi dans les années soixante-dix dans les années soixante-dix on pouvait quand même décrocher par rapport à Ray Delafosse par rapport à yenn écoles yi créer des des petits collèges techniques et cetera bon sauf japonais yi li ñu defoon ci côté foire euh, bon, nous installer un truc euh, vraiment, vraiment pratique. Je pense que les formations pratiques, c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire, un moment, il faut que euh, la science débouche sur quelque chose. L'apprentissage débouche sur quelque chose. Mais nous, nous jang, mais pour rien. Nous jang pour rien. Ça veut dire, des fois, un universitaire, nga ne ko léegi créel benn machine mais il sera en incapacité de le créer parce que euh, euh justement euh, il a pas été formé pour ça il a été formé pour les questions générales mm-hmm. mais bon léegi nag euh, loolu c'est facilement réparable pour former des ingénieurs yoo xam ne qui peuvent créer rapidement de la valeur ajoutée ça c'est pas diable c'est suñu volonté la et, et mun nañu ko def l'école polytechnique en France a été créée mais très rapidement parce qu'il y avait ce déficit-là aussi. Et puis les Japonais l'ont fait, d'autres pays l'ont fait, les Coréens l'ont fait. Bon, et, et, mieux, on a quand même euh, une formation excellente, mais malheureusement, les dirigeants n'ont jamais mis de l'argent dans la recherche. Soit l'Université de Dakar, euh, tout le, tout le, tout le truc, la fac de sciences, soo xoolee boo leen laajee ndax am nga un milliard am ngeen un milliard de budget pour développer quoi que ce soit dañu lay wax amuñu dara mm-hmm. mais bi Covid bi ñëwee Euh, le Sénégal s'est fermé sur lui-même mu nekk benn genre autarcie mais foofu la ñu créé n'est-ce pas ay suñu suñu propre respirateur ah on les a mais respirateur yooyu aujourd'hui est-ce que am na usine bu boo xam ne jël na brevet bi ne da koy développé est-ce que am na gouvernement bu ne tey Sénégal day créer day créer respirateur yooyu ci ci dëkk bi non amul c'est-à-dire que ñun problème bi ñu am mooy sincèrement on débouche sur rien on débouche sur rien waaw monsieur Semedo xam naa ne pour ñu jéem a jeexal débat bi rek jëm si mbiru fin débat bi rek ñu revenir si Ousmane Sonko candidature bi nga xam ne nii euh, tey Sénégal euh, vraiment coow li bëri na ndax sénégalais yu bëree bëree bëri dañu am yaakaar si Ousmane Sonko te gis nañ ne sénégalais yu bëri seen xel dafa ñaw ndax li gars yi naan bu ndobin ku ndobin rey sa maam boog seeru ñuul daw ndax gis nañ kaa a Sall gis kaa Karim Wade moo tax sénégalais yu bëri tey ñoom li ñuy wax depuis longtemps temps ne lii procès bi du procès euh, procès justice de justice pour liquider un adversaire donc yow loolu tamit yow lan nga say xalaat ak loolu lan la mën a jural ëllëg Sénégal. Euh, candidature Ousmane Sonko c'est une candidature légitime nit ku nekk nekk sénégalais mm-hmm. am nga droit ne man damay dem aux élections léegi nag li nga doon wax ci kanam ay parrainage ay ceci ay sola wala euh, de, les mesures financières pour dire que, par exemple, il faut tant de millions pour se présenter. L'autre, c'est pour empêcher mm. euh, euh, d'autres Sénégalais à accéder à la présidence de la République. Yo itamit, euh, barul ci réew ndax euh, euh, des fois bu ñuy def loolu di teg affaire yoo xamante ne kenn xamul fi ñu ko jëlee rien que pour barrer la route à des gens loolu du dëgg dëgg moom buñ ko waxee wax nañ ko wax te dee Ousmane Sonko sénégalais la comme tout les sénégalais man bokkuma Pastef du ma militant Pastef waaye dama ne que c'est normal que Ousmane Sonko mhm. dem élection yi lu mu fa jëlee muy noonu mais nañ ko bàyyi mu dem élection li dal euh, Karim Wade ak Khalifa Sall mhm. jamais deux cent trois loolu sénégalais yi dootuñu ko nangu et question bi yëpp ça tourne autour du troisième mandat ku fi bëgg a indi troisième mandat. musiba mm-hmm. boo indi ci réew mi yaa tooñ sa bopp. surtout xamoon nga ko de. monsieur Semedo. surtout boo xam ne ni yow da nga xamoon li mën a jur yow yaa wax sa ceela yëpp. ne troisième mandat day yee fitna ay nit dañ ci ñàkk seen bakkan. man nag li wax souvent man sama position suñu position UCAD ñu dafa leer troisième mandat moo nekkoon suñu ligne rouge boo xam ne mosuñ ko toléral kenn. ndax fépp fu am si Afrique musiba la fay jur. président bo xam ne ne yow da nga ñëwoon tey ba ngay xeex troisième mandat sax ba wax lii ma wax nii tey ne mooy troisième mandat day jur musiba loolu nag lan moo tax sénégalais yi moom loolu ëllëg man li may wax mooy ëllëg ku indi musiba yooyu bay nit ñàkk seen bakkan vraiment dafa yomb quoi te sénégalais yi waruñu seetaan loolu xam nga sénégal lan mooy wax ji lan mooy wax ji te ñu wax ko tënk ko mu jeex problème bi mooy mhm. euh, nguur nguur ñëpp a bëgg a nekk buur mhm. waaye buur bu dul liggéey. Hmm. Sénégal soxlatu ko. soo gisee xale yi yaakaar Sonko c'est parce que xam nañu ne que génération yi jëkk ñëw hmm. defuñu dara loo xamante ne mënoon na tax Sénégal dem ci kanam. Hmm. wax nga fi ma Dia tout à l'heure mais Mamadou Dia son programme était très avancé. nañ ko wax nañ ko wax Mamadou Dia son programme était très avancé et mieux. bi mu ñëwee Sénégal nekk euh, euh, président du conseil mm-hmm. école yi nekk Sénégal yëpp la coopération décentralisée école yéex yëpp loolu Mamadou Dia moo ko fa def et loolu en plus c'est le moment boo xam ne c'est le seul mm-hmm. moment dans notre histoire mm-hmm. euh, Sénégal exporté réellement exporté des denrées donc Mamadou Dia il était qualifié en économie c'est pas comme les les gens qui sont là Euh, qui parle et que du ñu def dara fu mu nekk ni réew mi li tax ñu war a wax euh, tënk wax wax bi nga xam ne moo fi des tey wax ji dëgg dëgg dëgg mooy question troisième mandat bi troisième mandat boobu nag sénégalais yi mënuñu ko nangu ndax wax waxeet mënul am mënuloo wax démb ne man président de la république euh, bon du dem troisième mandat maanaam Ablaye Wade du dem yow nga ne léegi yow ah yow xamuloo peut-être di nga dem mais kon yow mi nga xamal ki la fi jiitu ki nga xam ne yow moo tax nga tekki tey ba nekk président mhm. kooku nga ne ko moom du teg troisième mandat yow nag nga bëgg a teg yow troisième mandat. Euh, euh, c'est euh, ridicule xam nga man monsieur Sémédiaoune baal ma dagguma la xam nga lu mu métti si troisième mandat mooy dafa indi coow loo xam ne Moussa Diallo yaa ngi ñuy dégg Moussa Diallo ñëwaat na si débat bi. li ma métti si troisième mandat bi mooy dafa nekk loo xam ne warutoon am problème xam nga lu warutoon am problème lu leer naññi naññi naññi li bëccëg warut am problème. koo xam ne yow sax président sax yaa ko wax du fois si ñëpp dina dégg lu wartoon am problème nag dem na problème mag a mag man affaire dafa ma jaaxal allo Ibra Khady oh. waaw bisimilah waaw ñoo la dégg allo waaw ma ne mhm. troisième mandat xam nga lan moo ci metti sax mhm. dañoo ñëw 2012 mhm. ñu wax waxi troisième mandat te ñu nekk au pouvoir ñoom ñoo contrôle troisième mandat ñëw fii andi xuloo xeex ay nit rey dee ci douze sénégalais dont un policier. dafa war naa ne mhm. loolu rek danañ ci jëlee leçon ba nga xamante ne waxi troisième mandat kenn dootu ci wax. ñu ñëw en 2016 mhm. président bi euh, proposé ñu benn référendum. Mhm. ne vraiment léegi tëj naa constitution bi. durée mandat bi léegi cinq ans la. maintenant nombre de mandats yi c' est limité à deux parce que dañ ne la durée du mandat du président est de cinq ans. nul ne peut exercer plus de deux mandats. léegi nag le nul la mënta remplacer mandat le nul ça remplace une personne et cette personne là puis mm-hmm. la remplace par le président Macky mu jeex parce que loolu am jaratul sax mu ñuy indi interprétation leneen mu jóge ci dem wër ci kër kilifa diine yépp wax ne du ma def mm-hmm. troisième mandat tëj naa constitution bi mu taxawaat wax ko une fois deux fois trois fois ñëpp di ko dégg tey bu ñëwee ba en deux mille vingt trois di wax ay waxi troisième mandat je crois que ñun jànguñu ay leçon ci deux mille douze bi ñu ñëwaat tey nekkaat fii encore ci affaire affaire procès je crois que ce procès là nous a beaucoup coûté que dis waaw Moussa nag réseau te man dama jàpp ne allo ma ne comme dañoo jàppoon ne ñaari sénégalais ñoo jote bi ñu mhm. jotee bi ndaw si demee porter plainte mhm. kenn waru ci ci woon melewu mhm. ah waruñu ko woon sax def débat tey ñii dañoo waroon nekk di def ay débat ay programme waaw Moussa ak Semedo Moussa monsieur Semedo ak ñi ñuy seetaan xam nga man ma lu ma njëkk a jaaxal monsieur Semedo loolu dama koy poser question sénégalais yëpp ñun Afrique ak ñun senegal dañ naan senegal réew maslaa la naan euh, l'Afrique ak le pala arba palabra yooyu ñu koy wax ni kilifa yu bëree Sénégal ah ak histoire bi lim jural Sénégal ñi ci ñàkk seen bakkan waa loolu jarutoon kilifa yi fi nekk kilifa diine yeeg kilifa aada yi ñëpp jàpp loxo ñi concerné wu ñëpp tëj leen si néeg ne leen diw ak diw rek la affaire bi ci sutura ni ko Afrique doon defee même avant sax ñu yegg dem may may maam may ñang daf nga ne xalifa généraux yi bu ñu woon maam may ñang woo Sonko woo président Macky Sall toog ñëpp toog daf lool ne loolu dana egg musiba jur dana ko jur waaw xam nga euh, disons li li am ni ci ci dossier boobu mooy il fallait euh, ñu ñu trouver benn moyen mhm. euh, pour léegi isoler isoler carrément Ousmane Sonko bañ ko isoler ci problème judiciaire yi ñaari problème judiciaire yoo xam ne mu ngi nii taxaw na euh, waa di du am jot lijjanti mukk euh, euh, disons li muy préparé pour le Sénégal donc fu mu nekk nii affaire bi danger la pour la République pourquoi parce que en fait l'État a les moyens mais un candidat un simple citoyen il n'a pas les moyens de l'État mhm. donc si le si le citoyen n'a pas les moyens de l'État Et à chaque fois, le même citoyen mhm. euh, est obligé euh, de vivre euh, une situation boo xam ne drame la c'est une mhm. c'est un c'est un drame au quotidien yow sa fa nga dëkk mhm. balaa procès di am ñaari fan avant ñu boucler quartier bi doo dugg doo génn sa doom yi dañu jàng sa soxna yi mënuñu mais c'est-à-dire que loolu dañuy waxante dëgg ce n'est plus euh, justement waaw ce n'est plus possible monsieur Sémédo pour convoquer hôpital nga baal ma pour convoquer tribunal kay yow nañ toog di la xaar ba nga ñàkk a ñëw waaye dañ lay convoquer dañ leen ci si la te voilà donc ah, le risque est là waaw Moussa nag xam naa ne moom euh, kii bi mooy déconné micro bi euh, connexion bi day sant day dem ak a ñëw xam naa ne si sama benn mot benn parce que voilà man man si hmm. sama xalaat de man si sama xalaat suñu bëggee réew mi am jàmm hmm. li nga wax ci kilifa diine yi Mm-hmm. wala kilifa chef coutumier yi. Mm-hmm. mun nañ ko dégg mun nañ ko euh, mun nañ ko mun nañ ko dax ne loolu la ñuy ñaan. Mm-hmm. waaye problème bi mooy euh, kilifa diine yi mënuñu wax mënuñu oo Macky Sall oo Sonko taaj leen ne leen lii ak lii ak lii ak lii mënuñu ko mais li ma jaaxal mooy am na ñuy wax am na ñuy wax. am na ñuy ñuy ñuy wax euh, euh, Macky Sall lii wala ñuy wax Sonko lii wala ñuy wax kii lale mais problème bi mooy Sénégal tey fu mu toll nii xale yi ñoo représenté soixante dix pour cent de la population ndaw yi ils représentent soixante dix pour cent de la population te ndaw yooyu ñoom ñëpp Sonko lañu la la la ñu gëm de quinze ans ba quarante cinq ans boo bëggee téye Sonko di nga tas seen yaakaar booy xiif nañu booy yi mag nañu booy yi amuñu liggéey booy yi yoxuñu te bu boobaa di nga taal dëkk bi loolu mooy wax ji c'est-à-dire que aujourd'hui bu ñu bañee musiba ci réew bi nañu bàyyi Sonko mu présenté wu aux élections la la la la mbedd bi mën a lijjanti la mbedd bi mën a mooy musiba waaye démocratie du mbedd bi tey jii dans le monde entier dans le monde entier lii tubaab bi tuddee l'âge des foules mhm. foofu la ñu toll mhm. na nga xool fii problème mu gilet jaune yi mhm. musiba bi mu créé fii mai 68 bi ñuy wax lan moo ko indi mooy que la jeunesse dafa toog ba benn moment mu xool boppam ne fii amatuma fi avenir xaaral ma ma def li ma war a def léegi nag nañu bàyyi Sonko mu dem aux élections pour que jàmm am ci réew mi loolu mooy dëgg goo xamante ne ku ko waxul ah lu ñu ci muy noonu doole nag moom am na bu la neexee ay char am ay euh, comment on appelle ça am armée am lépp loo bëgg waaye doole d'un d'une population d'une foule, euh, d'un peuple qui souverain kenn mënu leen téye te nag loolu le pouvoir bu nekk war di gëstu. Mhm. nit ki bu yeewoo toog këram li mu xalaat mooy que man ni sama jaboot teddee tey. Mhm. loolu laa bëgg xale yi tamit tedd. kuy kuy père de famille ci réew mi. Mhm. war nga xalaat ne xale yi war nañu mën a am liggéey war nañu mën a lekk war nañu mën a naan. et fu may terminer mooy le problème écologique mm-hmm. man de sama wàlli bopp mm-hmm. le danger bi ñu nar a dund dans les années à venir mm-hmm. mooy sécheresse yi war a ñëw Sénégal te loolu calcul geeguñ ko ndox mi bii nar a Sénégal calcul geeguñu ko ñu ngi jël ay bor di teg mais bor yi waroon na nekk ay prévision pour suba ñu commencé léegi xalaat ne Mm-hmm. dañu war a sauvegarder ay zones géographiques entières. Mm-hmm. pour que ñu mën am ndox. Mm-hmm. geeru suba yëpp yi di ñëw. geeru ndox la naka doon. Moussa Moussa ñoo ngi woon ci conclusion bi ñu bàyyi la nga rek nga sànni si cadre euh, ñu conclure parce que ñoo ngi si une heure euh, onze de d'échange donc euh, trente minutes en français. bon xam nga sama connexion daf. non comprendre nañ la connexion connexion mooy daw quoi. <laughs> comprendre nañ la comprendre ñu bàyyi da nga def benn conclusion bu ndaw rek situation bi ak candidat Ousmane Sonko la doon wax sànq quoi ne que mbedd mi euh, la rue sénégalaise ne ne pas une élimination de de leader de Pastef. candidat la comme sénégalais yëpp. donc wa maa ngi dégg Moussa allo bisimilah Moussa. waaw Moussa euh, euh, donc monsieur Semedo Moussa connexion bi day day sant Diop ak ñëw li doon wax sànq rek mooy ne liñ Sénégalais yëpp gis loo xam ne ñaanu yàlla président Ousmane euh, président Macky Sall ñàkkoo jël en compte mooy ne euh, jàmm si la lépp xaj te armée loo ko am am lu mu bëri bëri doole bis bu mbedd mi taxawee ne lii bëgg lii loolu pour nga dindi ko dina jafe lool parce que xam nga ne mille policiers mbedd mee leen ëpp moo tax nag comme monsieur Semedo ni nga ko waxee rek euh, jàmm si la lépp xaj boo gisee tey Égypte place Tahrir dem ba gañe lam bëggoon am comme am lam bëggoon Tunisie noonu Euh, révolution printemps arabe yëpp lu ko waral mooy c'est la rue qui s'est mobilisée te Sonko moom ah man de du ma Sonko la waaye xam naa ne de ñi ko bëgg bëri nañ de yi am si moom yaakaar bëri nañ de Sénégalais nga xam ne ils sont prêts ba bàyyi seen bakkan si candidature bëri nañ moo tax nag ëllëg bu ñu demee ba ne condamné nañ ko ba ñëpp xam ne définitivement Ousmane Sonko écarté nañ ko loolu man tiital naa Sénégal te xam naa man euh, Sénégalais yi ma tasanteeg ñoo xam ne mosuñu dugg si affaire politique ñu bëree bëree bëri ah ñi ngi ñaawlu situation Sénégal bi image biñ gis Sénégal ñu koy jox le rest du monde ñaawlu nañ ko euh, nos partenaires économique tamit loolu rafet si ñoom donc ñun suñ loolu mooy suñ conclusion léegi nag dañ doon mbubboo toujours ne Sénégal réewu jàmm la réewu maslaa la te gis nañ ne problème bi bañ ko war a defal jàmm bëri na te nag na ku ko yee tamit xamoo fu muy mujj moo tax monsieur Sémédo ñun depuis tout le temps ñu yaakaar nañ ne lii dafa mel ne ñun dañoo am jàmm muy or mu précieux ba pare ñu koy foye dafa mel ne on se rend pas compte du danger qui guette le Sénégal man moomoon loolu moo nekkoon sama conclusion mu Semedo ñu lay jaajëfal bu baax a baax euh, yow nag lu tax ñun ñu sopp la lu tax ñu bëgg di toujours di waxtaan ak yow mooy ñi la xamul man bibliothèque laa la considéré ak sa jaar-jaar ak li nga xam si xam si diaspora bi ak si ay création d'entreprise Sénégal ak sa motivation ni nga bëggee Sénégal moo tax man roykaay nga si man te ñu la xamul rek ñoo ñoo xamul mais en tout cas euh, te un bon exemple pour la diaspora pour les jeunes sénégalais man tam lay jëf-jëfal bu baax ñaanal bu baax yàlla na Ika News si gën a màgg. amiin amiin amiin ndax euh, bon wax dëgg yàlla chaque fois bon ñu ngi liggéey. te bu ñuy liggéey yëpp Sénégal moo ñuy tax a liggéey ñun nag mënoon nañu toog fii feex yow feex nga man feex naa ñeneen feex nañu. Mm-hmm. mais ñun saay bu ñu yeewoo. amul bés bu ñu toogee maax yow. Mm-hmm. wala benn fan boo xam ne yóndewu ma message wala yóndewu ma la message ci Sénégal. Mm-hmm. donc ni ñu gëmee Sénégal. des fois dañuy toog sax am na ñoo xam dañu naan mais euh, ndax ñi normal nañu te loolu yëpp bëgg Sénégal dem ci kanam la hmm. te mieux gis nga tey jii bu ñu bëggoon lépp euh, lépp euh, lépp baax hmm. mooy ñu koy waxtaanee mais réew mi ñu ngi gëj a waxtaan depuis assises nationales yi hmm. dañu gëj a toog ñu waxtaan mais assises nationales yi ñu ci appliqué woon sax au début li ñu tudde woon la bonne gouvernance ba pare euh, appliquer euh, les déontologies yi amoon concernant la presse la liberté de la presse comment euh, gérer mieux le pays wallaay mm-hmm. kon tey dinañu avancer mais xoolal mm-hmm. appliqué wuñ ci dara mm-hmm. appliqué wuñ ci dara léegi nag forme de déviation yi ñu am mooy pouvoir oligarchique la ñu am Sénégal tey pouvoir oligarchique maanaam une bande de copains depuis Wade di fowe alalu réew mi ku ñëw tey suba nekk milliardaire suba milliard nag maa leen koy rappeler mooy mille millions nañ ma wax ban sénégalais boo xam ne fonctionnaire nga wala mm-hmm. politicien mën a liggéey mille milliards en quelques années mm-hmm. te nag amuñu si benn de ñuy wax ne ay plusieurs milliards la ñu yor mm-hmm. ba ñu fekk xaalis boo xam ne day na lu presque huit cent millions ci kenn koo xamante ne ci majorité bi la bokk ñu ne benn waaj moo ko sàcc procureur oowul kooku douane ñëwul euh, euh, impôt ñëwul convoqué kooku dara amu ci léegi nag ñu ne Ousmane Sonko moom mi ñu dàq ministère des impôts génnee ko euh, simmi ko futti ko dàq ko ci biti ñu ne kooku du du du toog mais bu toogulee tamit may leen ko mu bokk may leen ko bokk parce que sunu mbokk la te ñun kenn du seetaan ñuy toroxal benn sénégalais. man de monsieur Semedo leen rek laay wax ne mooy ne sénégalais yi daal wax dëgg yàlla élection lañ wax waxuñ sélection te wax dëgg yàlla nag dana ñaaw lool lool réew mu toll na Sénégal ñu am troisième candidature boo xam ne xam nga loolu daal benn yoon mën nga ko comprendre mais dal la ñaari yoon mais ñëwaat dal la ñett yoon vraiment sénégalais yu bëri xam naa bu bu bu justice ak lu mu doon éliminer Sonko man de tiital Sénégal te pense que je suis pas le seul ah nit ñi nag ñi ngi man nag problème bi yàgg naa te nit ñi am nañ jël nañ temps pour prévenir ñu baax ñi comment jël nañ temps di prévenir am na ñoo xam ne seen liggéey lañ baax seen di wax si réseaux sociaux yi nit ñaa ngi dénoncé ñu defe nag nit ñooñu ay caaxaankat lañ mais bis bu ñu demee nag ba lii ko yàlla mu yóbbu Sénégal fu garaaw a garaaw mais bu kenn bu kenn bettoon nañu parce que on a eu le temps di di fo dafa mel dañoo yore almet ñi yore essence ñuy fo gars yi même dañuy fo quoi mais am na fu ñuy toll xam nga jàmm boo ko fitna boo ko see ba yee kenn xamul kan nu muy nu muy nu muy fu muy mujjee loolu nag ñu bëri nag loolu lañ tiit mais dafa mel nag fo fa mel waaw mais loolu la loolu la moo tax fu mu nekk nii ah euh, nañu lépp dal. Mhm. mais nag dal mooy ñit ñi am yaakaar. Mhm. ab dëkk il faut ñit ñi fa nekk am yaakaar te ña mën a am yaakaar mooy ndaw yi. Mhm. ndaw yi ñoo mën a am yaakaar mhm. mais ndaw yi ñu yaakaar seen benn yaakaar la ñu am mu ngi tudd Ousmane Sonko. Mhm. loolu mooy problème bi parce que benn ndaw gëmatul benn politicien. gëmatul benn politicien Ousmane Sonko fayu leen defu leen dara mais bu taxawee ñëpp ñëw. waaye ñiy rocci xaalis bi di fay ndaw yi pour ñu booy xale yi ñëw assister aux élections wala assister ay sen débat yi wala yooyu ñëpp xam nañ leen. te nag ñi nga xam ne ñoom ñu ngi ànd ak Ousmane Sonko. Euh, ñuy fexeel Ousmane Sonko ñoom ñu ciy bokk di ko këppatal. mais loolu erreur bu rëy la. ndax boo gisee espoir li ñuy wax ne dans une démocratie boo gisee euh, ñoo xam ne éclosion la da nga di accompagner. démocratie noonu la war a def dafa war a accompagner ñi nga xamante ne suba ñooy leader yi nga xamante ne mun nañu téye réew mi mm-hmm. mais wax nañu tey si génération yi am nii yëpp. Mm-hmm. gis nañ fi ñu bëri ah ay booy yuy présenté wu war yooyu mais pourquoi sénégalais yi ñëpp bëgg a def la politique. mais mm-hmm. parce que y' a un problème y' a un malaise. dëkk boo xam ne trois cent cinquante partis politiques. Mm-hmm. trois cent cinquante partis politiques. on risque d' avoir plus de trente candidats. mais loolu mooy wane ñooñu ñëpp bu ñu jëloon xaalis boobu ñu euh, euh, nar a dugal ci politique bi aux élections ñu ne bon dañ koy dajale maintenant on va créer une cagnotte. euh, pour créer des entreprises. Mhm. Mais soit tu vas voir le nombre d'entreprises qu'on peut créer et le, le nombre de jeunes que, qui peuvent aller, euh, au travail. Mais parce que nous, ni mhm. ben affaire nekk ci tien bop. Politique bi butin de guerre la Wow. Politique bi butin de guerre la C'est-à-dire qu'on nek mu ngi yakar tey mhm. bokk ci ben coalition euh, pour patio réew mi pour sédo réew. Patio sédo mo nekk ci réew mi. Ah monsieur Semido monsieur Sémba xam nga man lu mu métti lan lu may wax souvent mooy est que ñun société sénégalaise bi tamit ñun feebaruñ tamit parce que tey yow da nga gis koo xam ne ni yow a yem tanewu la amul tus suba bu nekk yoro yoroon lu du jeex ba pare nit ñu topp seen ginnaaw di daw na la yow kooku la ko euh, du alal ju lew ba pare nit ñi di la ñee wala nit ñi di la teg bët yu au contraire nag bu doon nekk société boo xam ne nii kuy sàcc wala du politicien yëppay def lu ah, mu leer mais bu doon na société bi dañoo nekk nit ñu am jom ñoo xam ne ni tey bu ñu gisee ku def ku jalgati wala ku def yoon ñu jéppi la de côté ah ni yekk bu naqati est-ce que bon euh, politique bi dana amee noonu code ba sénégalais yu bëri tey duñu xool lu muy li nga am rek duñu xool li nga amee mais ni nga am rek lu sénégalais yu bëri di xool gis nga euh, joxe nga fi exemple yu wér mooy mhm. exemple euh, Mamadou Dia mhm. Mamadou Dia fonctionnaire yi kenn ñamul sàcc mhm. même doomu sëriñ am na ku fi jëloon alalu réew mi Mm-hmm. nekk ambassadeur. Mm-hmm. waaye Mamadou Dia da jëli. Mm-hmm. dégradé ko. dugal ko prison te remboursé na alalu réew mi. donc jiit boo ko nekkee cib réew. yow yaa war a nekk exemplaire. donc l'exemple euh, euh, pour un pays ce sont les dirigeants si les dirigeants son de qualité. dëkk boobu day dem éthique. maa ngi wu toujours euh, feu Euh, euh, Kéba Mbaye li mu waxoon sur l'éthique au Sénégal mm. Mm. discours boobu ñëpp dégg nañ ko ñëpp dégg nañ ko mm. te bi Abdou Diouf di toog Kéba Mbaye nee na ko les Sénégalais son très fatigués waaye tey waxuma la fatigué les Sénégalais son morts les Sénégalais sont morts dunduñu deewuñu moo tax booy yi boo leen waxee day tey yoon pour dem Espagne wala pour dem Italie pour dem fële dañuy bousculer wu pour daw te xale yooyu ndaw yooyu ñoo war a defar réew mi donc mhm. si ñoom la ñu yaakaar pour ñu defar réew mi mhm. mais boy yi dañoo dem ba découragé parce que politiciens yi ñu am mhm. ñoo normalul normalul trois cent cinquante partis politiques te ñëpp bëgg a nekk président euh, loolu moo tax dañu war a génnee euh, euh, les caisses noires dans le pays caisses noires yi moo indi lii yëpp ndax caisses noires on doit les supprimer les bannir à vie Mm-hmm. waaw et puis euh, euh, ñu xam ne que loolu mooy programme boo xam ne ñun ñi mën nañ ci dégg bu parce que bu ñuy supprimer caisse noire yi. dootoo mm-hmm. gisati politiciens yu bari au Sénégal man maa la ko wax. bu boobaa ñëpp dinañ wàññeeku. Mm-hmm. monsieur Semedo ñoo ngi lay jaajëfal je rappelle que débat bi nag euh, sur l' actualité politique sociopolitique Sénégal lañ ko doon defee. Euh, suñ première partie bi français lañ ko waxaan pour suñ mbokk nga xam ne francophone la xew Sénégal euh, deuxième partie bi nag wolof lañ ko def donc ça a au moins quarante deux minutes donc plus de la euh, lépp même si ko def ñuy hmm. jaajëfal aussi Moussa Diallo Moussa Diallo nag connexion bi moo xaw a sënd xam nga Sénégal moom fa connexion moom dafa métti lool ñoo ngi vraiment ay jàmbaar ngeen quoi bala xam nga ñëw vacances di ngay si ay connexion jënd connexion rek du ma tudd réseau bi ñu. ma mais mais Makhala Makhala Makhala da xam naa ne xam naa ne xam naa ne day naan soow quoi moo tax amul jot. sa mbokk sa mbokk sa mbokk fële la ah. donc ñuy a ngi bàyyi ñu déglu wala di ñu seetaan euh, si IK ñu bëri ndeysaan am na samay camarade de classe yoo xam ne ndeysaan samay ancien camarade de classe maa ngi si gis ndey Kodou Sène ñoo ngi jéggalu nag bu ñu si dee sa di nuyu ñëpp di nuyu public IK News bi aussi euh, di leen jaajëfal euh, merci pour votre fidélité donc merci aussi de partager pour rek permettre ñi xam ne ni xamuñ canal IK News di mën suivre l'actualité on fait ce et beaucoup de personnes vraiment sont très fiers du travail qu'on fait on les remercie aussi de leur soutien monsieur Semedo mi si am yeneen ak am nañ grand yu bëree bëri ndeysaan vraiment vrai si terrain bi lañ xamante grâce à IK jaajëf maa ngi nuyu ñëpp jaajëf maa ngi nuyu ñëpp en ligne mais merci beaucoup donc euh, à bientôt euh, sur IK News pour un autre débat selon l'actualité merci beaucoup ok allez merci jaajëf waay merci monsieur bye bye jaajëf jaajëf jaajëf bye bye ciao